jërëjëf Limaamu Laay yow mi nu xalal yow lislaam xamal nu laaw bi saba Allah woo jotal sa woo teru yépp ngay wax naan lu fiiru dina ñëw see ñu ñëw nag ci ka nga xamante ne mooy rakki bay Sidi Coow ja muy Seydina Maam Alsaan Laay suñu sang bu baax ba ku tedd ka toppoon magam tarbiyu ko ba magam gërëm ko mu boole ay maye maxi ngëneelam toog ci xilaaf ak maamam ah ki nga xamante ne mooy Seydina Maam Alassane Laye Seydina Mandione mooy waajuram Seydina Mandione waxoon nañ leen ay waajuram ak ku ñu Faat Laye Diop maam Faat Laye Diop nag mu dëkk dëkk bu ñuy naan yëmbal. sëñ Jóobe nag yëmbal googu la bokk waaye nag moom it waajuram wu jigéen mu nga jógee dëkk bi nga xamante ne tey jii moom la wax caaray fa la jóge kon cosaanam am na mu nga jóge mbaaw mbaaw mu nga jóge mbaaw a bokkañ mbaaw bokka caaray kon moo waral seen naa maam alsan lay ay mbokkam ñu nga mbaaw ñu nga caare ñu nga yëmbal te it ñu nga Dakar kooku mooy Seydina Maam Alsaan Laay di xalifab Baay Seydi Thiaw mooy Baye Seydi Thiaw la wutu ñu ñëw nag ci Cherif Abdoulaye Cherif Abdoulaye xalifatu muslimin Seydina Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wér ah moom ñëpp xam nañ ne Seydina Issa Rohou mooy baay mooy waajuram ak ku ñuy wax soxna ngaan Diop soxna ngaan a ah, Kumba Ngoy mooy waajuram moo waral Seydina Limaamu nag alayhi salaam Kumba Ngoy moo ko fekke bay lay da def saa bu génnee danaan waaw waaw suma drapeau bi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy polote ci ëttëb ko moom wooy Abdoulaye ngi si Abdoulaye bu ñëwee sama oote dina siiw penko ak sowu ñëpp dinañ ma xam ndaxte booba mu ngay signalé yaaya yu Chérif Abdoulahi te kooku ganeegul àddina kooka yaaya moo gën moo fi nekk mooy ku ma ngoy Kumba Ngooy mooy waajuru soxna ngaan soxna ngaan moomu nag moo jur Seyif Abdullahi mi nga xamante ne tey jii moo toog si xilaaf ak Seydina Limaamu uutu Seydina Maam Alsaan moo jigéen ju baax dañuy wax Astulaay Siis Astulaay nag mu nga dëkk Tëngéej Abdoulaye Ciss mu ngi dëkk Tëngéej maam Samba Ciss mooy baayam maam Samba Ciss nag saabab Seydina Limaam la woon alayhi salaam fekk jamonoy naa Limaam mu gëm ko dëkk Tëngéej daana def nag saa su jógee Seydina Limaamu ñu ngi ko denc Gorée mooy jamono ji nga xamante ne mu nga nekk Gorée ñu tëj ko foofu maam Samba Sënde da daan jóge Tëngéej ci war gaalam dem Gorée di siyaare Seydina Limaamu alayhi salaam ba benn bis mu ñëw bàyyi laay xool ko gis ne Samba Siis dafa nekk ku jaaxle maanaam mu nekk ku triste tey sëy naa limaamu la ko waaw Samba Ciss tey day daw nga mën di ko jaaxle lala sa njàqare moo ko gën a xam nag maam Samba Ciss nag ah sanga bi man de damay def saa su nga xamante ne suma soxna tollu na fii rek boo amee doom doom jooju day génn àddina te suma soxna fi mu nekk nii dafa ëmb ba toll ci weeram loolu moo nekk suma njàqare Seydina Limaamu ne ko alayhi salaam sa gore na ko Samba siis sa soxna day doom ji mu ëmb nii mu ngi tudd Ramatulaay siis kooku nag dina dund ba am rakk rakkam jooju mooy tudd Astulaay siis Astulaay siis moomu mooy jur suma xalifa ba te booba Seydina Limaamu moo nga gore loolu nag moo waral Seydina Limaamu tudd na xalifa ki nga xamante ne Baye Seydi caw la lu jiitu Baye Seydi Thiaw di nekk xalifa ndaxte booba sëy Limaamu moo nga gore waaw sëñ jal benn woote ga la Baye lay tudd ki nga xamante ne mooy Baye Seydi Thiaw sa nattu ba natt ba nag buñ ko waxee Goré Sala kon foofu la ñu tàmbalee si Baye Seydi Thiaw euh, comme nag limal nañu leen xalifa yi ñu dellu rek di wax si Baye Seydi Thiaw Baye di Thiaw nag ay mbiram dafa yaa waxtaane ko xajul si benn jataay waaye dañ siy jukki rek Baye Seydi Thiaw moomu wax naa ne ne Seydina Limaamu tudd na ko alayhi salaam tudd ak xilaafaam te boobu waajuram sax ganewul àddina waajuram bu jigéen boobu ganewul àddina ah moom moomu nag Baye Seydi Thiaw mam Samb Ciss ma nga xamante ne mooy maam mu ngi jógee si ka nga xamante ne moom la ñuy wax ñenn ñi yaakaar nag séeréer la te du séeréer ñu koy wax maam Kañ moo tax ñu naa àllu kaañ boobu nga xamante ne booy dem kees di ko romb mu nekkoon ku bari woon xam-xam ba nga xamante ne maam guddi Jóob mu nga jógee Kajoor di dugg Dakar moom la romb ba mu ko rombee foofa ba mu ko rombee mu nuyox moom jàmmatente moom mu daal di ko dalal mu ne ko fan nga jëm mu ne ko maa ngi jëm sawu ba mu ne ko foofa boo fa demee dina dina dina la jox jenn jigéen ju xamante ne jigéen jooju jigéen ju wàññeeku la waaye boo ko jëlee di am doom ju àddina yu soow doom jooju àddina yu soow nag mooy ki nga xamante ne ci jëm boppam moom la ñuy wax maam jël jóg kon comme ku kooku jël jóob sëriñ Dakar kon kooku ku bari woon xam-xam la ci kooku nag ci kooku nag la maam Samba Ciss jóge Samba Ciss moo jur Asulaay Ciss Asulaay Ciss moomu nag moo jur Baye Seydi Thiaw kon Seydi Thiaw ci wàlli néegam dayam ay boroom xam-xam lañu ay boroom may lañu woon yàlla defit maam sàmb sis waa Tëngéej embargo nañ ko na ba kenn jëndee tex moom bu mu mbaal si mbaalum kenn bu mu dem géej ci gàll kenn ndax gëm Seydina Limaamu salaam moo waral it yàlla tere la ko xalifaam bu tedd boobu muy ab sëtam di Seydina Limaamu di ñetteelu xalifa Seydina Limaamu alayhi salaam Seydi Thiaw moomu nag li tax ñu ne la tudd nañ ko lu jiitu muy toog ci xilaafaam muy am na jamono joo xamante ne Seydina Mandione da ko yónni woon fa nga xamante ne mooy Cambérène ci Maam Seydi mu war weloom boobu waxambaane la boobu jeune la yéen nag comme jeune ngeen xam boobu xale bu góor la mu war weloom daal di pédale ba Cambérène ba mu ñëwee ba sa buntu kër ga mu daal di wéer welo ba su mi fay dàllaam daal di dox ba si Seyna Issa boobu Seyna Issa rawalaahi mu ngi toog ci piliyaanam jàkkaarloo penku yor kulusam ba mu doxee ba si maam Seydi nag na groupe sukk foo loxaam lu xam wax déy ko lañ ko yónni ñu waxante ko ñoom ñaar ba pare mu tàllak ay lu xam maam Seydi ñaanal ko mu soog a nuyu nag ba mu jógee nag la soog a nuyu mag ña toogoon ak maam Seydi léegi nag di dox di dem jëm sa borom jëm sa bunt kër ga ngir jëlab yolam pour dem ah ba nga xamante ne nag loolu am na moom mu ngay dem ca buntu kër ga maam Seydi nga jàkkaarloo moom di ko xool bàyyi Seydi Thiaw nga woon ginnaaw maam Seydi nga koy xool muy dem waxatul kenn mu koy xool muy dem waxatul kenn mu koy xool muy dem ba mu jëlab yoloom war ka ba pédale ba kenn gisatu ko Seydina Isaa ne est-ce que suma borom baa xarala moo ne day doomu manjoon ji yàlla dëppal na ko ndëppal urus mi yàlla dëpp na ko ndëppal li yàlla jox na ko xilaafa maamam waaye li ma gën a jaaxal ci xilaafaam xilaafa gi yëngalul sax ñaari mbaggam daka antan kon maam Seydi waxoon loolu te boobu maam Seydi moo nekk ci xilaafa gi ah sëy naa ma jon yoon ni bàyyi Seydi Thiaw mu dem sa moom wax ko sa kàmbareel kon Seydi Thiaw teel naa jot ak xilaafam Seydi Thiaw nag ñenn ñi xamul dañu ne Seydi sew jàngul aha kay Seydi sew jàng na ñoom dañoo xamul fan la jànge ngir suma mag baay Balla Niang moom moo wax ne ma Baye Seydou Thiaw moo ko waxal ci gémmiñu boppam moo moo wax ne Baye Seydou Thiaw moo ko wax ci gémmiñu boppam ne ko man suma baay mi ma moo ma jàngal kon Seydou Thiaw ku jeexaloon téere yi la ku bari woon xam-xam la waaye Baye Seydou Thiaw nag Seydina Mandione da ko jur ba pare yëkkati ko jox ko Seydina Babacar moom Baye Babacar moo ko yar boole kaa defaat ci moom xam-xam ba bi fi baay Babacar Laye di jóge daldi ne ba ngeen ma gisatul li ngeen daan seet ci man dem leen seeti ko si doomu Mandione ji kon waaye Babacar Laay teel na kaa wóolu si xam-xam Seydina Maam Alsaan Laay nag moom Seydina mu njoon da jurit ba pare yëkkati ko jox ko maam Seydi Seydina Isaa Ruuhu Laahi moo ko yar Sërif Abdullahi moom si boppam Seydina Isaa moo ko jur ba pare yëkkati ko jox ko sey naa ma naa ma Seydina Mandione ko yar moo tax Sëriñ Abdoulahi Seydina Mandione la xam li nekk ci moom yëpp Seydina Mandione ko def si moom waaye Baye Seydi Thiaw dafa roote ci ñaari géej ba si ñett ñaari géej yi ma lay wax mooy ñaar ñi Seydina Limaamu moo leen jur ñetteel ba nag maamam la ah baayam maamam la mi jur ki nga xamante ne moo jur yaayam ku bari woon ay kéemtaan la ba mu nekkee xale da daan def kéemaan yu nekk ku teel xam boppam la teel a am ak may waaye bu weesoo li mu daan dem géej nekkoon navigateur di dem ci bato yi nekkoon it ku daan dem tool nekk it ki daan mbaal sànni nekk ci géej gi di mbaal sànni loolu ñuy wax ak yor pitalam di rëbb ba ñenn ñi naan doomu ma joon ji de xanaa jàngul am sa ku ko wax dem wax ko waa waajuram bu góor naka waaw man de doomu ma joon ji may gis rekk mu taxawaalu ci tefes gi rek yor yor pitalam di pital pikaay yi ak di mbaal sànni xanaa moom jàngul xanaa amul métier bàyyam na ko kooku de bés bu màggee kooku nga jàngul mun a mu nekk dina togg ci xilaafa ak maamam te bés bu toggee ci xilaafa gi mun a mu nekk ñun suñu njaboot yépp ci la ñuy duggee ci diine yi Seydina Limaamu kon kooku Seydi caw la ñu ko wax Baye Seydi Thiaw ah nekkoon na ku nga xamante ni jamono jooju daawu jóge si wetu baayam bu masaa dem rek mbaali ji defi ay mbaal sànneem yooyu dem géej wala mu dugg si àll bi ci rëbbi wala mu dem ci tefes gi di fital picc yooyu nga xam ne mooy ay picasso ahi nangeer di leen indi kon daawu jóge si wetu pàppam kon kooku fa roote ko fa roote yaakaar naa ne dinga war a nekk am kàngin kàngin nag mooy ku bari xam-xam ku nga xamante ne di nga géeju su xam-xam ah Seydou Thiaw nag toogul demul ba toog ci xilaafa ñuy soog nag xam-xam moom dafa bari woon ay kéemaan daane def lu nekk ci xam-xam loo dégg rek ci wàlli xam-xam lu nga xamante ne day yéem bàyyi Seydou Thiaw daane ko def waaye nag mu ngi toog ci xilaafa gi 1971 fekk waajuram bu góor génne àddina Seydina Mandione waaye nag nga xool Seydina Mandione bi mu génnee àddina bàyyi di Sow toog ci xilaafa gi waaye ndax Baye Seydou Thiaw ci xilaafa gi rek la mës a jiite déedéet bàyyam jiital na ko mu julli ji ay it jiite ji julli ji na ay korite boo nga xamante ne bàyyam mu ngi ci xilaafa gi boobu bàyyi mënu dem bàyyam jël ko préparé ko ñaanal ko mu jël kaala gi muuroo ko ci bopp bi kaalawoo ko daal di laa laafa dem jiite ji it jooju moo ko jiite moo xutba moo ji moo jiite kon jiite na si xilaaf ak baayam dem sa jullukaay ba mooy julli korite kon ku ñu waajal la moo tax nag Seydi Thiaw moomu bi mu toogee ci xilaafa gi nag moom lu nekk def na ko fi dem naa Cambérène parce que Yoff laa xamoon boobu dama demee Cambérène waa Cambérène ñoo ma nettali ci seen gémmiñu bopp ne ñoom fekk nañu géej gi ginnax ginnax bu xamante ne dafa téye gaal yi Seydou caw jog ñëw jàkkaarloo géej gi xool ko di xool géej gi géej gi di dal di wàcc ba na di ba gaal yi nga xamante ne si jëm boppam mënuñu woon a teer ñu mën a teer kooku Seydi Thiaw def na ko sa Cambérène ñëpp a fekke ko te balaa kaa Seydi Thiaw di def maam di defoon na ko géej gi gën nax ba duusee dal fu ne bàyyi Seydi Thiaw taxaw Seyda Issa Rouhou Lahi taxaw tàllal loxoom ba géej gi di wàcc ba na bërës bàyyi Seydi Thiaw defaat na ko kon Seydi Thiaw mooy Seydina Issa Rouhou Lahi maam Seydi ba nga xamante ne Baye Seydi Thiaw gane na àddina ñu ne Seydina Issa ah Mandione de am na doom ju góor ba sey ba ko Seydina saa ñëwee jël ko xool ko da xool ba mu yàgg mu ne kii dama koy rey ndaxte kii kat max moom mënuñoo dundandoo kii bàyyiwul si man dara kon Seydou Thiaw mooy Seydina sa Rouhulahi amuñu benn uute lu dul kii dafa njool ki gàtt kese ñoo yem ay jikko ñoo yem lépp ñoo yem xadar ñoo yem jàmbaare ñoo yem lépp boo ko xoolee rek ci doxali nit maam Seydou rek da ngay gis ne Seydou Thiaw mooy maam Seydou te moom lañ ko tudde waaw bi mu jëlee xilaafa gi 1971 di dem xilaafa gi di dem moom daldi di dekkalaat diine ji ndaxte Seydina Mandione dafa jële xilaafa gi ak mag amoon lu bare bare bare ba mu demee ba nekk ba mu demee ba nekk mag dëgg dëgg dëgg am lu bari loo xamante ne si diine ji ah ñu bari dañoo nekkaat ci leen neex rek def leen neex waaw comme na mu nekkoon ci Seydina Limaam alayhi salaam Seydina ba mu demee ba ci mujjanteelu dundam danaa wax ne am da ngeen yaakaar ne damaa mage wala gisatuma wala déggatuma wala te xamatuma ba ngeen bëgg a jël suma kër bëgg ko def përëx wërëx bési ngi si bési man Limaam dinaa doon Limaam fanweeri at ñett gën a gaaw kooba gën a dañ kéwél dañ gën a dañ kumpa kéwél gën a soxor gaynde ko mën a bàyyi suma kër dinaa ko bàyyi boobu nekkatam ngi lépp Seydina Issa rawulaahi mu nga naan Seydina Seydina Issa mooy toog ci xelaa bi kii fanweer atax ñett boobu Seydina Limaam kooku lay wax waaye it bàyyi di Sow bi muy utu bàyyam boobu wax mu ngi si kantanam nekk si kantanam nekk waxambaane utu bàyyi julle ko daal di toog si xilaaf ak baayam nanga xamante ne Seyna Isa jullee woon na ko Seyna Limaamu baayam Baye Seydi Diaw jullee ko baayam Seyna Ama Diaw doy waar te yaakaar naa ne xilaafa gi nit jullee fi sa baayam utu bu dee ne dina amati dootu gaaw kon ñoom ñaar ñoo fi jullee seen baay bi mu jullee baayam nag uutu ko defaraat ci diine ji lu bare bare moo tax waykat wa wax ko na ko ru yëpp doon nañ xalaat koroog ba maam joon demee limaamul ma di yooy kelo solleeri sey di soodaan nga daa di jóg taxaw kàbbar waa aras yu ngóor laay malaaka yooyu si joon ngi leeram yu sey di soodaan mat ngab sa ngoo borom jamono doomi bàyyi ma njoon laay sanga dañ koy matt nuru ko barka baay laay digle nga say ngir ñu maya may say di amoo maas ku wóolu maam di baax jëfe ngir ga baay laay mu ne ko digle nga say ngir ñu bañ a moy say di laay amoo maas ku wóolu maam li baax jëfe nga ngir ga baay laay mat ngeb sa ngóob borom jamono doomu bàyyi ma njoon laay sanga dañ koy mat te nuru ko barke bàyyi laay mu nekk limaamul maadiyoo di sa maam bàyyi ma njoon laay sa baay amar lañu xalal yoon wa barke bàyyi laay kon bàyyi seedi caw ngoog nekk ku nga xamante ne yor xilaaf ak maamam doxal ko 1971 ba 81 mu daal di oote ñëpp ñëw ab ziar moo fi amoon booba dañ daan ñëw dëkk yëpp ñëw def ziar ba sa jamono yi maam Seydi ba si jamono yi Seyna joon ziara fa amoon léegi nag ba nga xamante ne 1981 Baye Seydou Thiaw oote mu xaddam yi ñëw rakk yi ñëw njaboot gi ñëw ñëpp toog ca tànt ba maa nga fa woon mu ne sama maam jox na ma ndigal ngir ma yeesalaat oote bi daa di ko def xewu mag siyaar bii dootu am léegi oote ba lañ koy def mooy oote Seydina Limaamu ba at mu ñëwatee dañ koy màggalaat salaat woote ba ba ñëpp xam ne Seydina Limaamu alayhi salaam woote na moom la ñuy wax appel tey jii ñenn yi di ko wax aaju boogi ba mu waxee loolu ne dañuy oo àddina wërngël képp ñu ñëw ñu biral leen ne sama maam woote na mooy di limaam Mahdi yu mooy Muhammadu Rasulullah mooy wax dem moo ñuul tey fàttali leen su mu oote maam sëñ Ablaye naka ah sanga bi loolu ndax du diis si ñun ndaxte ziar bi rek dafa diis si ñun kon nag bu ñu fa ootee te àddina kon ndax dinañ am lu ñu jox. bàyyi Seydi Thiaw jël kaala ga daal di lem daal di jël loxo ba teg sa kaw kaala ga daal muuri kaala gi mu def ay pekkati pekkati xaalis mu ne ndax li mën naa appel ah ab laay nekk lii dee ëpp na sa appel mu ne dama leen di oo rek ngir ku si nekk def si dërëmam ngir barkeelu waaye boo ñu si deful moo wax suma taalibe jinne yi ñu jox ma ñu def si ñu appel appel koroog la fa génne cib xaalis kenn xamul nu mu toll maa ngi fekk naa ko loolu mooy tàmbali appel bi ba ñu tàmbalee appel bi bàyyi Seydi Sow mu ngi bëggoon a jël waa kër Moustapha Serigne Moustapha Sy pour booba ñoom ñoo fi am ay baas ñooy tànt pour ñu tàntal ñu appel bi waaye yow volontaire ko bàyyi ñu tànt ko ñun taalibe yi bàyyi yu lëbb yi dëkk yoof ñoo jëkk volontaire appel bi di ko tànt ay ati ati ati at kenn jàpp si xanaa kay bàyyi njiin caw moo daan jóge Cambérène ak lenn si waa Cambérène ñun ñoo ko daan tànt waa yoof di tànt kër yi di tànt Cambérène tànt fi nga xamante ne mooy yoof tànt fu nga xamante ne mooy ngor muutal ko ay bés yu ñu koy def nee na ñu ubbee ji Cambérène ci maam Seydi bu ñu fa jógee ñu dem Ngor fa xunta ma bàyyi laay leer ga nekkoon yendu fa ba ñu fa jógee ëllëg sa ñu xëy si yor yorop sey naali moom ba mu oote woon ajibo daa ilaahi oo àddina wër ga képp bu ñu demee ba sa ngoon ga ñu daal di def cérémonie officielle oo mbokki bàyyi laay ak ñi nga xamante ne ñooy kër diine yëpp ñu xamal leen ne Seydina Limaamu fii la oote woon appel bi ñu njëkk a def muy 1981 sa ñaareelu fan ba muy yor-yor ba ba yor-yor ba jàllee sa ci tàkkusaanu yor-yor ba mooy bés ba nga xamante ne sooy ci la yor-yor ba am muy cérémonie officielle ba. ca tàkkusaan ga fekk ñu defal waa Yoff turbine ilimaan yax ngor wakaam ba yaraaxa caare yax mbaaw ñëpp dajale bi yëpp daje sa turbine boobu se la bàyyi seedi coow na woon sama maam moo woote na yàlla ko yónni mooy démb mooy tey mooy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy limaamul mahdi ku ko weddi nag wàcce yéen ñii ay mbokkam ku ko si weddi tey gii wàccee si suuf rek nga coppati si suuf si nii si say baaram nga ne limaamu yàlla yónnee ko nga seq ka fi ngay yem kenn defu ko sax koroog jooju bàyyi seedi caw def na loolu kon appel bi tey buñ naan appel bàyyi seedi caw ko waral moo ko sos ba tey jii laayeen loolu la ñu am ci bés bu nga xamante ne ci at mi moom la ñëpp di xaar si ñoom ñu koy def xalifa bu fi nekk di ko def ak njaboot ak taalibe loolu bàyyi si di caw ko soxal muy appel xunta male sa ngor bu fay dem bàyyi seedi caw tax moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko jëkk moo fa jëkk a dem si ab xalifa moo ko santaane dafa dem ba tey ñu fay dem fa nga xamante ne mooy ndingala bàyyi seet di caw fa dem moo fa jëkk a dem si ab xalifa ànd fa laayeen yëpp taalibey laayeen yi ak njaboot ak Seydina Limaamu yëpp ñu ànd dem fa utal ko bés ñu fay dem ba tey jii ñu fay dem foo nga xamante ne mooy ngejje ga bàyyi see di coow fa jëkk dem ci ab xalifa ànd ak mboolem laayeen di utal ko bés dafa dem kon bari na tey jii lu ñuy def si laayeen Seydi Thiaw ko fi jëkk a def kon di Thiaw nekk na ko xamante ne kenn war kaa mën a fàtte <clears throat> jumaa ji si yoof jàkk woon bu nga xamante ne maam Seydi ka tabaxoon bàyyi ka ne seen jàkkaa ngoog bàyyi Seydi Thiaw ko jëkk ubbi def ko jumaa ba tey jii buñ fiy julli jumaa yàlla moom moo tax beneen ba mooy yoof ci jëm boppam géej gi sonal na leen di lekk dëkk bi guddee bëccëg di lekk dëkk bi guddee bëccëg ba ñu bari toxu bàyyi seeni kër seeni génn wàll kër yëpp géej gi lekk ko fekk boobu dafa amoon benn projet canadien mooy comme loolu ñu def Tëngéej mooy barrage xeer yooyu nga xamante moom lañ ko def moom la ñu diggoon waa Yoff def ko yàlla def affaire bi yéex lool te géej gi mayu leen dara saa su nekk rek mu ngi lekk dëkk bi sa la ñu ne waaw du ñu seeti gi Seydi Thiaw ah ñu daal di def délégation seeti ji bàyyi di Thiaw waxtaan ak moom naka dëkk yow comme sa maama dendaloon géej du ñu bëgg nga ñaanti géej gi kat parce mu nga ñuy lor te kane jaay yi ah ba ñu diggee ànd ak gouvernement bi pour na dañuy kay def baaraas yi waaye ba tey defaguñu ko ah, ah bàyyi Seydou Thiaw ne leen sama maam de moo randaloon géej waaye man maa dand géej waaye man na ma kaa yemale dem som na ma sama borom dinaa yemale géej sa ñu ko benn yor yor bàyyi Seydou Thiaw jaar si tefes ak jàmmalaay daal di dox ba ndinaat foofu nga xamante ne fa la géej gi gënoon yàq daal di ëlbatiku jàkkaarloo dëkk bi xool dëkk bi xool dëkk ba mu yàgg mu albatiku xool géej di xool géej ba mu yàgg mu xoolaat dëkk bi ba mu yàgg xoolaat géej albatikuwaat xoolaat dëkk bi xoolaat géej ba mu nekk ñetti yoon <clears throat> mu ne incha allah lay géej gi dootu leen yàqal ba jëme tey jii géej gi yàqalatul waa Yoff kon 1981 la woote woon woote seen alimaam yeesalaat ko 1982 bàyyi laay ñëw feeñuwaat ko nekk dama lay yónni ci mboolem kilifa yu diine yi ngeen nga dem si ñoom fekk leen seeni gox wax leen ne man mi yàlla moo ma yónni maay Muhammadu Rasulullah maa weexul démb maa ñëw tey maay siidi awalina wala axirina maay li ma mahdi mu ootewaat ca péréwo ba foofu daal di wax mu nekk lu diis lool ca la def tournée boobu nga xamante ne def na ko fekk ji mboolem xalifa yi ku si nekk mu fekk la fa nga nekk mu wax la ne yàlla moo ma ni yàlla moo yónni sama maam moo ko yoon ni mooy démb mooy tey mooy Muhammadu Rasulullah mais yoxoon sa mag mu dellusiwaat di max di yu alayhi salaam fii si Soodaan ndax gëm nga ko wala déet ku si nekk feddali na gëm nga ko. mu daal di soog a dellu yoof ba mu dellu see koro dañ ko teeru teeru bu rëy ah lala ay sër la ko tàmbalee kër loota laay bu bàyyi Babacar ba si péro bi man bokk naa si ñàkk a teeru ji waaye ba mu ñëwee ba si tànt mi ñu sikkar sikkar sikkar ba daaneel ba mu jëlee kàddu dafa wax ne bés bii ku ko teewee yàlla da mën a sa xame xalim ak bàkkaar dootu bindal bàkkaar bi ilaa yombi din seeram araamal na safara kon Seydou Thiaw a ah, ab yonante day moo ko yónni comme Arona ba nga xamante ne àndoon na yontu yàlla Moussa moo ne ko yàlla boole na laax man ngir may ngir nga may jottali samay kàddu moo tax ñu wax yontu yàlla Arona <coughs> kon Seydou Thiaw maamam sante na ko ngir mu ootewaat oote bi yëkkati ko mooy appel bi ngay gis maamam sante na ko ngir mu demaat ci xalifay diine yi wax leen ne yàlla moo ko yónni def na ko kon kooku yaakaar naa ne diiney maam ji am na si may am na si taxawaay te it at ya maam Seydi dund moom la Seydi Thiaw dund waaw ngir Seydi Thiaw mu ngi judd 1914 loolu nag ab takk la 14 mooy ba nattu ba jeexee ci àddina ngir booba jamono feebar la woon bu nga xamante ne feebar bu mag ba amoon ci àddina bi lëmbi ko di rey guddeeg bëccëg ba feebar boobu ba feebar boobu jeexee ba feebar boobu jeexee nag ci la Seydou Thiaw juddu muy 1914 1914 boobu la ñu sanc laayeen gi jëlee ko Ngaparou sanc laayeen 1914 boobu la ñu jëlee euh, Cambérène sa Ndingala andi ko fii mu nekk nii Cambérène gi te lay dëkk yu bari si la ñu leen sancaate si 1914 boobu la bàyyi Seydou Thiaw gane àddina muy lu yéeme nag lu doy waar. ba at ma yàlla dindee natt bépp si àddina sa la yàlla def Baye Seydou Thiaw judd Baye Seydou Thiaw nag mu ngi dund 73 ans 73 ans yi nga xamante ne moom la maam Seydou dund génne àddina 73 ans yooyu la Baye di Thiaw dund génne àddina kon nag ñu ngi la di siyaar di leen màggal di leen ñaanal jàmm di siyaar soxna ku mën ndooy lay caw bu bàyyi seedi caw di ziar ki nga xamante ne mooy magam ju baax ja mambay laay di ziar Issa Diop euh, ka nga xamante ne mooy maam Samba di ziar ka nga xamante ne mooy Iba Fay laay di ziar soxna Coro Ndiaye di euh, soxna Seyne bu laayax ñoo ñëpp ak njaboot ak Baye Seydou Thiaw gépp bàyyi ñu kenn boo limee dangay ngay di siyaar soxna yi bàyyi ñu kenn di siyaar képp ku nga xamante ne saa boobu Seydina Limaamu nga ñu ngi lay ziar di siyaar xalifa Baye Abdoulaye Thiaw di ziar xalifa Baye Abdoulaye Thiaw ak njabootam di siyaar ki nga xamante ne it mooy Iba Fay laay boobu Seydina maam Alsaan suñu xarit suñu soppe ñu koy ziar di ko ñaan jàmm di ko ñaan sutura xéewal soxna maam Kumba siyaar nañu la laay waaw maa ngi dellu si di wax ne ah Seydina Limaam alayhi salaam moom la yàlla yónni mu woote ajibu da ilaahi yaa masaral insi wal jinni in rasul aleykum di waxoon nag al nasihatu lillaahi mu ne laaw bi ci yàlla mooy nga wéetal ko te kennal ko te di ko jaamu tey bàyyi lépp lu nga xamante ne tere na la ko tey jëppe lépp lu nga xamante ne digal na la ko moom suñu borom mu ne laawe biir nag jëm ci yonantab yàlla bi mooy nga dëggal ko te woote ba mu wootee nga xamal ko ne dëgg la nga gëm ko te topp ko te lépp lu nga xamante ne diggal na la ko nga koy jëfe lu mu la tere nga bàyyi ba sa yem nag sa loola waaye na nga koy digal mbooleem képp ku nga xamante ne ak nit la ku nga xamante ne xam nga ko mu ne laawe biir jëmale si kilifa yi diine yi mooy nga bëgg leen ñoom ñëpp kilifa yi diine yi nag ñëpp xam nañ leen ko demee ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ah maam Cheikh Omar alaaji malik seex saadi boox bu kunta ak ka nga xamante ne mooy góor gi Ablaay Ñas ak góor gi Ibrahima Ñas mooy Baay Ñas ak ka nga xamante ne mooy maam alaaji malik yaa ñëpp ak seexu canaba bëggal ñëpp ku ci nekk bàyyi laay nee na nanga ko bëgg te nanga ko topp topp gu nga xamante ne lépp lu mu la digal si lu baax ni nga jëfe lépp lu mu la tere si lu bon na nga bàyyi kon wareef la si tarixa boo ne képp koo dégg ne mu ngi yëngu ci diine te diine ji li ñu tënk mooy lislaam nga jàppale ko sa la nga xamante ne sa la nekk maa leen ko naan wax Seydina Limaamu alayhi ba mu wootee woote bi dafa officiel àddina bépp la oo fépp nga xamante ne waaye nekk na fa rek moo xam tarixa boo ne Seydina Limaamu mas nañ ka laaj mu ne ñooñ ñëpp sumay jaboot lañu bu ñu ma gëmee bu ñu ma gëmul ñëpp maay seen ab yonent te ngir maay Muhammadu Rasulullah maa weexul dem maa ñuulaat tey te yaakaar naa ne ku bokk si tarixa ku nekk la nga fay xeeñtu mooy yonante bi sallallahu alayhi wa ak sa borom bi nga xamante ne moo ko yónni te la nga fay xeeñtu yonant boobu mooy seen alimaam moom la yàlla yónni mooy démb mooy tey kon mënoo dem di xeeñtu si sëriñ ba nga gëm di sa xeeñtu yonante bi weddi seen alimaam kon waa kër seen alimaam it mënuñoo bañ a topp sëriñ seen yi gëm leen ndaxte bàyyi laay moo santaane pour ñu gëm leen xam ne li ñu yor yàlla leen ko jox joxuñu ko seen bopp loolu nag la bàyyi Seydou Dia daa wax ne bu yàlla taalee jëlal ak matt dolli sa taal ba gën a yànj waaye bu yàlla suule bu yàlla fayee suulal ndaxte loolu moo war a jaam ku yàlla yëkkati bàyyi seeti saw na la yëkkatil kilifa yi diine yëpp nag yàlla moo leen yëkkati gëm yàlla nag bàyyi laay nee na mooy gëm lu yàlla dogal bàyyi laay nee na bokk naa si dogal bi yàlla bi nga xamante ne man la yàlla dogal si man maay Muhammadu Rasulullah kon ngëmu kenn si yéen du mat lu du ma gëm dogal yàlla kon ab jullit man la nekk fu mu nekk ne ab jullit la di oote ak lislaam te gëmoo bàyyi sa njula day des amaana nag yàlla mën na la see bañ a boole waaw mën na laa bañ a boole si ay taalibeem waaye nga bokk yi si ñi koy liggéeyal bokk si ay soppeem ngir si Ahmadou Bamba xaadimu rasul day liggéey Seydina Limaamu alayhi salaam waaye du ndaxte mooy jëw nanam ndaxte sëñ Bamba nee na li may liggéey yëpp Mouhamed laa koy mooy Seydina Limaamu fa mu nekk ña ko topp ñëpp lañ ko toppee mooy yonante bi yonante bi Seydina Limaam kon fépp fu waay jàpp ànd ak kooku di liggéeyal baax na bul génne lislaam ndaxte sëriñ si yëpp amul lu ñu digle lu dul topp yàlla jaamu yàlla innamal mu'minuuna ixwa fasluhu bayna axawaykum wattaqullaaha la'allakum turhamuun yàlla de na jund yëpp ay mbokk ngeen na ngeen ngëpp ci buumu yàlla gi te bañ a teqal ko waaw bu fekkente ne nag yàlla dañu sante loolu ñuy bëgg xàjjale ko suñu biir loola dañuy génne li ñu yàlla sante kon lu waa kër sëñ Touba nekk na sa laay yëpp jàpp na sa tijaan yëpp jàpp ñun ñëpp nañu ànd gëm sëñ Touba ci li nga xamante ne moom na ko yàlla jox ñu jàppale ko si ñun ñëpp nañu ànd gëm maam El Hadji Malick ci li ko yàlla jox te ñu jàppale ko si nii nga xamante ne ay murit lañu war a tijaan ñoom nañu ànd gëm Seydina Limaamu gëm ne li mu oote dëgg la gëm ne yàlla ko ko jox buñ ko liggéeyee yàlla lañ ko defal képp ku nga xamante ne nag da ngay fas yéene topp sa boroom di ko jaamu doo parparloo doo xëja seel yàlla nag mën na am ko mu la boole muy tarixa ba nga bokk waaye nag jàppal tarixa yëpp téye leen jàppale ah sa alal waaw yaakaar naa ne murit bu ne bu ma jàppee liggéeyal laayeen àndax laayeen di liggéey day tax dootuma nekk murit dangaa nekk ko ko xamante ne dëgguloo sa la nga nekk bu dee laayeen nit bu ko waxee day dëgguloo sa la nga nekk bu dee tijaan bu ko waxee dëggoo sa la nga nekk ay jullit lañu te jullit gee ëmb lépp nañu ànd rafetal ànd bi te ànd liggéeyal suñu boroom liggéeyal yonentam bu tedd bi ah yéen maa ngi ne di siyaar di leen jàmm di leen ñaan sutura xéewal ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp yàlla nañu yàlla boole defal jàmm. yéen Sénégal ak li ko wër ma ne jaaxle jeex na waaw waaw Al Haïbou TV la meilleure chaîne YouTube du Sénégal. ubbi na ay bànqaasam jëmale ko ci askanub Sénégal waaw da am sa événement muy événement bu mu mënti doon waaw da nga am li nga xamante ni moom mooy jàng wala nga am gudd bi yenante bi wala tàkkusaanu bi yenante bi lépp loo soxla ci événement dañu la koy filmel ba nga kontaan monter la ko monter bu xafet waaw Al Haïbou TV nag ñu ngi fii ci diwaanu Sénégal da ngeen bëgg seen événement ñu koy couvrir mu gën a rafet mu gën a yànj muy baax lool wol Al Haïbou